وإنني باسم مولانا العلي الأزلي أبدأ نظمي هذا تيكونيا ميونيو نلي وحنينا وحني monsieur le maire Alioune Sall soxna Astou mi ngi lay nuyu mi ngi lay ziar mi ngi lay ndokkeel ci bis bu tedd bii nga xamante nii dafa sant yàlla ndax bisu bisub Seydina Muhammad képp ku la ci boole képp ku la ci boole yow yaa ko amee njukkal mu nekk loo xamante nii lu wëy la ci moom dafa mel ni Chérif Ibrahima Aïdara mooy dugg si kon dañuy noppee ni tuuti mu toog su ko defee ñu yëgale kàddu yaa imaamal Sall ne mi ngi lay sant ak ñi nga àndal nee na kontaan na ndax yëf yi kat mi ngi jëgg yàgg mi ngi bëgg yàgg wallahi mi ngi bëgg yàgg booy boo sax ma ni yàgg na ndax ba ko soxna si tàmbalee kenn ci sa xarit sa mbokk sa lépp di usmaan Niang sax indi naa ko ci benn yoon te jii fi ñuy waxee nii ma nga ca Gabon waaw ma nga ca Gabon mbokk yi laaj nañ ma numéro am léegi jox naa leen mi ngi leen di sant di leen gërëm nee na daal fa tabarakallah kontaan na yàlla mi nga xam ne mooy fay yal na yàlla fay leen ci jëmmi sayyidina muhammad rasulullah ci barke alquran karim sàmba yamu ci loolu nee na mi ngi sant mbokkam bi waa cubaleen waa cubaleen sàmba nee na mënu leen fay def leen di bàyyi ak yàlla subhanahu wa ndax kat du mel nii du ñëpp la yàlla jagleel nga xewle sa ay mbokk ñëw sa xarit ñëw wax dëgg yàlla loolu bokk na ci li nga xam ne dal na xel teg ci ni mi ngi nuyu ak di sant képp ku nga xam ni wax dëgg yàlla nekk nga ci quartier bi yaa xam ngay wayjur yow yaa xam nga bokk ci njaboot gi sàmba nee na gis na seen taxawaay yàlla muy fay yàlla na yàlla fay leen ci jëmmi sayyidina muhammad rasulullah alayhi salaam wallah sàbba nee na itam mi ngi feddali kóllëreem ci waa quartier bi sàmba nee na ña nga xam ni ñooy jigéen ak ña nga xam ni ñooy xaleel daldi di ñëw nag ci mbokku jullit yi nga xam ne ñoo nekk aseg na nekk fa ak ki nga xam ne mooy soxna nee na ñay jigéen mi ngi leen di sant sant boo xam ne am na fu mu tàmbalee te amul fu mu yem ña nga xam ne ñooy góor itam que zalika kañoo see tudd bokk mooy Cheikh Mansour kase Samba nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla fa nga bëgg egg yow ak njaboot je ak képp ko xam ne yaa nga aseg naa yàlla subhanahu wa def nga teew fi mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm yal na yàlla yàggal taxawaay bi ci kaw suuf ci jëmmi sayyidina muhammad rasulullah alayhi salaamullah ñëwati itam rek ba ci ñi nga xam ni ñooy ay wayjur ñëw ci ak mbokk yi ak ñi nga xam ni bokk yàlla subhanahu wa def na ñuy rak ci kër gi ki nga xam ni ah mooy sama soxna di miñal ba di rakkam ñu bokk ndey ak baay ak ka nga xam ni mooy seen mag di awa awa sàmb ne ni mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm nee na kontaan na ci yow yàlla miy fay yal na la yàlla fay taxaw nga leen taxaw boo xam ne wax dëgg yàlla mënuñu ko sax wax waaye daal nee na lii ci am solo rek mooy dollee ñaan yàlla subhaanahu wa gën a yàggal seen ànd yàgg yàggal suñu ànd ci kaw suuf Seydina Muhammad yàlla na xam-xam bi gën a yokk ndax at bu jot ñu daje fii nga waxtaan fi loo xamante ne bi nit ñi dinañ ko mën a téye di ci jariñu ba déwén kon Chérif yàlla na suñu borom defal la jàmm di ci teg nag suñu sëriñ suñu xarit suñu lépp boo gisee bi mën ñëwee ñu ne ma yéegal ci kaw man leen ci suuf laay toog boobu xam naa ne sama sëriñ dina dikk ndax gaw kudd ku sëñ tubaa bëgguma ku dul sëñ tubaa muy sëriñ naa Mbacké sëñ naa ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di ñaar ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak liggéey bi ngay liggéey ci quartier bi ci gox bi ñun ñi dëkkee Pikine yëg nañ ko te xam nañ ni sa maam sëriñ tubaa bu del siwaatoon doo doo soppi sa toogaay di ziar bu baax sa rakk jooju nga dendal muy Serigne Omar Mbakke di ko ñaanal yàlla moom it gudd fan gu ànd ak wér waaye di nuyu bu baax suñu jigéen suñu xarit waaye bala may egg si moom damay nuyu sama royuwaay koo xamante ni bii heure boo ko gisee Pikine muy dox bu laajte ci dina Mohamed rek lay dox. ci yàlla rek lay dox lu baax lay dox lu baax lay wax muy alaaji ma silla kan mii ci kaw di suñu imaam nag di ma jiite àjjuma kon ma silla yàlla na suñu borom guddal sa fan yàlla na suñu borom wéeru sa cër suñu borom bàyyi la fi ba ca kanam kanam di nuyu bu baax soxna soo xamante ni bii fii laa xamanteeg moom ci ci tànt bi muy soxna aasi mii toog di jigéen du baax jigéen ju sell jigéen joo xamante ni bii doo ko fekk mukk ci lu doye di heure boo ko woowee heure bu mu mën a doon bu la tontoo tontu bu yiw la lay tontu kon soxna si ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér bi nekkoon ci maam yàlla na wàcc ci yow ci dara daraje Seydina Muhammad di nuyu bu baax nag soxna umm si mu soxna asi moom Serigne Moustapha Sy kii yaayam ba bi muy génn àdduna papa la may wax papa fu ñu daj rek papa la may wax at bi ma ko tuddee sama conférence bi may def Pikine defe naa ñoom soxna ndaxte mi ñëwoon nañ ca année boobu carte yi génnagul sax soxna asi génn àdduna ba léegi turam mi ngi ci carte yi ba léegi ba fi ñu toll nii kon soxna mu ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla gudd fan gu ànd di wax nag ci tur waa aéroport ki nga xamante ni bii dama jël làmmiñam di ko waxee muy Adja Ndaamu li may toog di suñu kilifa ca aéroport ba yabal ma jox ma kàddoom ni ma lu ma mën ci wax ci lu baax ci sàmba bam yi toog ak asta jaxa bi mais lépp lu ma wax ci ñoom xeeb na ko waaye bi muy ñëw dafa fekk suñu beneen mag ñu koy wax Moussa Sarr mu nekkoon aéroport ba retraité soxna Ndaamu Kule bi muy ñëw mi ngi ànd ak astu saaxu ma li toog nga xam ni Adja Ndaamu Coulibaly mooy présidente amicalu jigéen ñi nekk ci plateforme aéroportière bi yépp suma xarit bi toog di Mamadou Faye ñu bokk asigna ak soxna ndaamu kulub ak euh, asta bi ma la toog suñu baay bii di suñu kilifa di kebe Cerno kebe nga xam ne aéroport la nekk ba retraité moom it fekk ñu ci jataay bi kon ajaa ndaamu kulub bi dafa wax ni mi ngi sant bu baax sàmba ba muy toog nee na bala muy sant asamaye day sant sàmba ba muy toog li ko waral moom mooy muy guddi muy bëccëg heure bu nekk dina ko téye asta jax bi male ci liggéeyu amical bi te sàmba du ni du wax te bu ko neexoon mu ni ko liggéey ngay def boo wàccee na nga ñëw nit ku baax a ngi nii dama am daayira soxna jaara at bu jot ma def conférence at bu jot mu dajeeg seen yeneen wëllëre yuy def conférence mu ni asta jax bi male deel dem ci conférence yële man ci conférence Cheikh Mansour laay dem loolu nit ku baax moo ko man jikkoy makarimal axla la ko ji ñu tagga rasulullahi moo nekk ci moom te heure boo ñëwee ci kër gi dina la jox cër boo xamante ni bii jéggi na dayoo kon Saloum Mbaye yal na suñu borom defal la jàmm yokk sa sutura yokk sa teraanga barke bu mu mën a doon yàlla na wàcc ci yow ak sa njaboot ci daraje Seydina Mohamed mais ñun waa aéroport amuñu fayu asta jax bi mee ñun ñu ngi ko tuddee aéroport laa dame de fer ndax heure bu dëgg taxawee góor ñëpp toog jigéen ñëpp toog ci làmmiñam lay njëkk génne dëgg ci làmmiñam lay njëkk génne muy technicien nekk ci aéroport ba ba léegi day sol blouse di liggéey heure bu ñëwee aéroport fulla fayda doon jàmbaar fonk liggéeyam lool góor taxawul ci aéroport ba yeb ko amul góor guy taxaw ci aéroport ba yàpp ko kon ku mel noonu boo nekkee moom muy jigéen te doon jigéen ju jàmbaare da koy fonk moo tax ñu fonk ko ba bërki démb bërki démb la ñu toog ñun ñépp ni suñu secrétaire généralu syndicat Assa Jax bi mii lañ koy jox moo nekk suñu secrétaire généralu syndicat loolu nag li ko may ci biir góor ñi mooy fullaam mooy faydam mooy jàpp njàmburam mooy fonk liggéeyam te ni mu mel ci service bi noonu la mel ci amical bii Adja Ndama Coulibaly jiite Adja toog naa bureau mu ni ma kase ma ni ko mbakke mu ni ma heure bu ma gestoo bu ma gisul kenn yem ci asta jax bi rek sama xel dal na parce que li ma leer ba leer mooy fulla fu ñu taxaw dina ko wax dina ko jëf dina ko def kon ko mel noonu bu tàntalee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ay sëtu xaadimu rasulullahi nekk ci kaw ay sëtu yenent bi nekk ci kaw bis bi at bu jot mu gën a jëm ci kanam du dellu mukk ginnaaw li muy def kon lu dëggu la ci moom xaalisam du ko fekke du xaalisu jëkkëram du ko fekke daraam du ko fekke ndax fonk rasulullah kon asta yal na yàlla defal la jàmm yokk sa sutura yokk say teraanga ci darajay Seydina Muhammad bis bi yàlla na ngeen dem ba seeni doom ni leen papa yaay toog leen lii ñoo koy organiser lu ci wax nañ ko ci def ci darajay Seydina Mohamed ñun de sant nañ la bu baax a baax a baax a baax a baax ñun ñi góor ñi yenn saay ñu tàng jër asaay toog wax ak ñun ba ñu wàcc ku mel noon na boo ko amee sa kuréel da war nga ko sant gërëm ko ajaa ndaxte yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla wéra sa cër ku xam soxna aasi si moom sëriñ Mansour si xam na la te boobu ba léegi delluwoo ginnaaw yokki yaa ngi ci kanam fonk ñi soxna asi fonk ñëpp fonk leen yàlla na suñu borom dafa la jàmm yokk sa sutura yokk sa teraanga honorable député ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal yàlla yéen fee ngeen nekk ñoo leen fa teg te it suñu alal lañuy jël di leen fay tant bu nga xam ni waa kër sëñ Touba suñu maam Alaaji Malick ak shérif ñoo fi toog bu ñuy wax dañ leen di jox cër bu mat sëkk kon shérif danga may jégal sama nuyoo ma tàmbale ko ci imaamu koñ bi bi nga xam ni tey gëm naa ne bu ñu duggee ci kër gi ci këram la jëkk a dugg ba pare ndax moo jiite koñ bi ci wàllu lislaam di nuyu délégué de quartier bi di soog nag teg la ci yow mi nga xam ni li ma koy waxee sëñ Omar Mbàkke di ko wax sëñ euh, Cheikhouna Mbàkke yéen tiitaru Géejawaay ngeen Chérif Sénégal yëpp dañ lay bëggee waaye ñun waa Géejawaay dañ lay bëggee tey nag ni ko ba du waxee bi ñu door fii bi ma ñëwee ah ñaan nga de te ñaan bi it am na kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di nuyu bu baax a baax sëñ Cheikhouna Mbacké di sama xarit li ma yox moom xam na xam naa di nuyu sëñ Omar Mbacké mi nga xam ni moom it sama xarit la sama freer la sama confident la parce que dañuy waxtaan lu bare ñoom yàlla def na séquma ak ñoom leneen lu dul ne nekk ay xarit di nuyu sëñ Lamine Mbacké bi nga xam ne tey man ak moom sëñ euh, Aziz Mbacke sëñ Amar ñoo waroon ànd fu ma leen yëkkati ñu topp ma te bu la neexoon ñu ne ay surtout sëñ Touba lañu donc su ma leen yëkkatee mën nañ ma bañ a topp sëñ Lamine Mbacke maa ngi lay jox sa wàccuwaay di nuyu oustaz sëñ la Kan li ma ci jaaxal rek mooy sant bi te xam naa ne gis naa ne as suturé bokkal ko fukki mbuusu beñe kon sëñ bi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di kontaan ci yow di bëgg ci yow ci say waxtaan muy nag ci média bi ak feneen fu ñu la fekk toujours dañuy bëggal ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di nuyu soxna Asiyatu bi nga xam ni moom it xam na man xam naa ndax sama xarit la soxna si maa ngi lay sant bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay ndax bi mu ñëwee léegi-léegi gisuma woon dafa noonu day jëg di ma man mën ko déet maa lay fekk si ndax sama xarit la di doon doomu soxna mu xayri si eh, xëj na moom jotuñu minante tey la ñuy soog a gisee ah bu ñu sañoon it ñu jàppante ndax nag ñun dañu soxla ñu mel ni yéen ndax tey bu du woon yéen Sénégal tas na bu yàgg sas wax na ko léegi léegi Sénégal dafa bare ay waxkat dafa bare jaxasekat waaye yàlla dimbali nañu ba am nañ sëriñ yu baax yu fi nekk am nañu ay maam yu baax yu nga xam ne ñoo tabax Sénégal ba Sénégal tey loo fi xalaat rek ci lu bon yàlla soppali ko lu baax kon ñu ngi nuyu ñoom ñëpp di nuyu nag waa koñ bi yëpp di ci di ko jox di di ko teg ci loxo suñu yaay nogoy si la male mi nga xam ne tey lépp li fi ay suturé di ko def fii moom def ko fii def di fi tànt moom it tànt yonent bi ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di nox nuyu ñoom soxna Awa Fall ñoom euh, Fat Fall ak ñeneen ñi nga xam ne ànd naa ñoom wax li ma doon wax Chérif keroog ni ko nag bu yeboo Serigne si sàkk pexe parce que lu waay doon jaay mi ngi bëgg a lamb de ma ne ko dama gis ci internet bi liir buy nàmp di tari suratu yaasin léeg-léeg mu daw ca ween wa dellu si waat tari ma ne ah kon nag des dan leneen lu ñuy toppe nit lu dul tari rek ma gisati benn waay bu sol benn manto ñu di ko dóor ay bal muy faxas bal yi ma ne ah kii de bu dëkkoon Sénégal dina bari taalif ndax moom kéemaan rek lañu gëm miracle miracle rek la ñu gëm moom nañu indi rek lu ñàng lu raar moo tax dégg naa benn sëriñ ndeysaan sama nijaay ne sax dafa retraité fi mu doon liggéey ni moom tànn na affaire sëriñ parce que daal fokk mu liggéey te jamono neexul mu daal di wut néegam di def ay ñaan ak di wuti taalibe ñu daje nag ma ne ko waaw ndijaay naka naka mbir yi mu ne ah taalibe yi dañu commencé nand léegi man sonn naa trop mu ne te waa du ñuy wax ndoy baan bilaay dinañu lay ak moom yomal xayam nga dafa détecté yenn jeux yu baree bari yoo xam ni gars yi dañ ko daan dem mu ne ndoy baan yàq na sunu liggéey taalibe yi dañu nand léegi waaye daf fekk rek jikko boo ko àndeek nit Serigne Cheikh Tidiane si nee dañu toog ci Tiwaawan benn waay ñëw ni yàlla ma yónni nee na mag ñiy jaaxle di cibatu man leen déglu leen ko mu yàlla ma yónni nee na ma ne ko yoway kan ci yonent yi mu ni man maay Isa Faati Serigne Cheikh nee na ma ne ko lu la yàlla waxoon mu ni def noonu pour ma woolee Serigne Cheikh nee na ma ne ko boo demee nga ne yàlla gëmunu la mu ne ko ndaxam wax naa ko ko biig nee naa ko ñu ngi ma yónni ñu dëjjiirlu lañ mu ni dafa xamul nii liy gëm nitu yàlla ci nit ëpp na nit ki moo tax boo ko dee woote te doonoo ko da lay jural doyati moo tax ko woote ren ba déwén sa mbooloo di gën a yokk di gën a law nit ñi di la gën a bëgg di la gën a sopp nit ñi dañu am xalaat am na lu la yàlla booleel ah loolu ci am ñëpp yemuñu hmm? ñëpp yemuñu de ah dinaa koy faral di wax nag tooñu ma sax naari gànnaar yi mais dama ne bu doon naar yëpp a yem boo amee projet juma Mauritanie gi nga yem hmm? bu ñu baaxee bokkuñu méthode ñëpp yemuñu moo tax boycott arab bi bu mu waxee ñaari wax ndax dafa am ku nii annaasu waa dafa jëkk a wax nii kenn ki jëkk a wax dafa wax nii annaasu min jihati tamthili ak faaw abuhumu aadamun wal ummu xawaa fa in yakun lahumu fi aslihim sharafun yufaaxiruuna bihi fa tiinu wal maan mu ne annaasu nit ñi min jihati tamthili boo leen dee nattale ak faaw ak maas lañu ñu ñoo yem moom noonu la gisee abuhumu aadamun wal ummu xawaa maam aadamay seen baay maam xawa di seen yaay fa in yakun lahumu fi aslihim sharafun bu fekkee am nañu tamit teraanga ci seen cosaan fa tiinu maaw ndox ak ban dong lañu dégg nga kooku moom ni mu gisee keneen ko tontu ko ni ko annaasu shatta ida ma kunta duqtahumu laa yastawuna kama laa yastawi shajaru hada lahu samarun xulwun madaqatuhu wa daaka laysa lahu taamun wala samaru keneen ki tontu ko ni ko annaasu shatta nit ñi bokkuñu ida ma kunta duqtawumu bu ñu loon doon ñam ba nga ñam leen di nga xam ni bokkuñu laa yastawuuna yemuñu kama laa yastawi shajaru comme ni garab yi wutee ndax garab yi haada lahu samarun xulun madaqatuhu am na ci garab yoo xam ni am na meññet meññet ma neex na wadaaka am ci garab yoo xam ni laysa lahu taamun wala tamaru amul meññet ba meññet ma di far neex moo tax yëf yi mënuñoo bokk de hmm? Hmm? alaaji maxtaar caam taalu ba cheikh la muqaddamu sëñ babacar la xaritu sëriñ cheikh la hmm? dafa am ku koy gaaroo waale ne ko doo jënd pasti mu ne ko màcc naa ba pare ma nga xamante nañ li ñu waxante xamante nañ ko doo jënd pasti mu ne ko màcc naa ba pare loolu ñu wax jawaami'ul kalim baat bu gàtt te tontu rëy yonent bi sayyidatuna Fatima dafa ñëw ni ko sama tan Aïcha daf maa xas mu ne ko lu mu la wax mu ne ko def ma ni sa papa sa yaay bi bi ko sa papa yi takk màgget la xam nga Xadija am na 40 ans yonent bi am 25 ans jël ko mu ne ko lu mu la wax mu ne ko def ma wax ni ma sa pap sa yaay bi ko sa papa yi takk màgget la yonent bi ne ko fayul mu ne ko nu may fayoo mu ne ko nee ko yow it di nga jot sama papa sama papa màgget la jawaamiul kalima ngoog wax ji moom na gàtt rek te yem jarul gudd hmm? kon tabarakallahu shérif maa ngi lay jégglu waxoon naa sànq la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi ba pare weddi sama bopp di wax sa kanam wax ju gudd loolu nag maa ngi la koy jégglu maa ngi jégglu sang yuy toog waa kër Serigne Touba maa ngi leen di jégglu maa ngi jégglu itam waa kër Sidaaji Maalik yi maa ngi jégglu itam boroom xam-xam yi ndax léeg-léegi ngay wax te ñi lay déglu ñoo la gën a maîtriser li ngay wax Sëriñ Fàllilu Mbàkke tudd naa ko bi may commencé waxtaan wi dafa am ku ñëw ci moom ni ko Mbàkke dama laa soxla Sëriñ Fàllilu ni ko bismillah mu toog ni ko Mbàkke ginnaaw bi yàlla wéyee yonent bi wéy Sëriñ Tuubaa wéy Sëriñ Fàllu ni ko ma wéy ndax ñooñu fu ñu wéyee lu fa Fàlluy def dafa ku ñëw ni ko Mbàkke dama laa soxla woon sëriñ Fallou ni ko bismillah mu toog ni ko Mbàkke gannaaw ba yàlla wéyee yonent bi wéy Serigne Touba wéy Serigne Fallou ni ko ma wéy ndax ñooñu bu ñu wéyee loolu fay def waaye léeg-léeg ngay wax la arab wax rubba xaamili fiqihin gayru faqih bari na koy wax e eh, tabaarakallaahu ka lay déglu moo la gën a maitrise li ngay wax sama gàmmu bi nag dafa dafa ma sànni xeer mii ka honorable député mii ka ba nee na dafa may sànni xeer ci baji ak kan waaw waaye day bi ñuy séddale sant yi ñun ñëw xëy rang fees fees terrain bi dal kenn amul sant ñuy séddale kon ñu jox la ñin leen dem leen njaay ñee ñu ni dem leen ñeen jóob ñee ñu ni dem leen yeen faal ñee dem leen yéen ndaw bi timis di bëgg a jot am ñu ñëw ne eh bi ñun boobu ba léegi ñoo ngi taxaw jonn kenn joxunu benn sant mun leen dem leen ak jonn jonn baax na waaye ba bu ñu tegee kan teg ba sa tandaama Kulibali nag moom dama ko ciy rocc ndax moom ma ko xaw a rus waaye ba moom benn araf la te kan wax nañ ni inna innama amruhu ida arada shay'an an yaqul la kun fa yakun yaa man xazaynu risqihi bayna al kaafi wan nuuni nee nañu daal trésor suñu borom yépp mi ngi ko denc diggante kaaf ak nuun waaw waaw ah moo tax mooy kan rek boo ko maasul kan waaw ah ah waaye am naa xaalis waaw sama man kon nag kon nag am naa ñaari ñaari doom ndax comme tudd naa kan te Cheikh Omar mu ngi ci kaw te loolu am nag Serigne Cheikh Tidiane si nee na ñi sant kan ke kaw lax la ko waxee maa ngi toog te confédération de la Sénégambie nee na ñi sant kan. ñu ngi leen di jëmee askanale ci banu kinaanata ngir jege ji yonent bi moo tax bari nay sang nee na ñi sant jaawara nee na jaawara du sant tur la mi ngi jóge ci jaafar ibnu abi talib ñii ni jaawara ñii ni jaafara xam nga moom xam-xam ba dafa bari waaye sant boo gisee booy tuubal nit di ko dugal ci lislaam lu santam ñàng-ñàng doo ko sànq dangay ngay soppi tur wa rek bàyyi ko santam ndax valeur bi nga xam ne sant am na ko donte nag yoo demee ci réewu naar yi seen bàyyi la ñuy dàkkantal seen jaboot moom laa leen doon nettali ci ki jóge woon Tiwaawan dem doon jaari Màkka te moom moo daan nettali sëñ Babacar su juumee rek sëñ Babacar day muuñ bala muy wax muy wax rek mu dem màkk nag ndeysaan yàkkamti naa ñibbisi ba nettali li xew Màkka faf yàlla natt ko mu ñëw ci dernier vol fekk gaa yi nettali lépp mu ñëw ndeysaan sëñ Babacar daal di koy xool bët yi lewet mu ne ko ah waaw ku baax ñëw nga mu ne ko ñëw naa di simaalik ko lu xew màkk nag mu ne ko man day simaalik mel nu man day am naa kenn amul ci ujaaj yi sëñ Babacar ni ko loo am mu ne ko mel nu man maati jaar ci santu yonent bi mu jaar ci sama sant sëñ Babacar day ne ko ah yonent bi moom nu mu sant mu ne ko ay dara waaw sant dañ ko lijjanti waaye <laughs> waaye sant moom tabaarakallaahu sunu mbokki naar yi dañuy dàkkantal nit diw doomu diw waaye bu dee Sénégal moom sant yi rek waaw waaw yan sant yu jege ñu nag waaye tabaarakallaahu yéen yàlla barkeel eh, yëpp contentement la rek ci ay ay Aysatu Touré muy sunu soppe di sunu lépp nag wax dëgg yàlla macha allah di ko baax nag di ko yaatal ay sa tundaama ak délégation bi mu àndal ñoom astu saaxo wax dëgg yàlla ñoom i tamit ay soppe lañ yoo xam ni bu ma doon ma doon wax fii ñu ne ah conférence ba mujj na sax mujjul waxtaan ndax benn waaye daal la fa toog di wax rek waaye rek mbaax gu yaatu te bi may commencé te am fekku fi sérif maa ngi tàmbale woon sama wax ci Samba Ba ak Astu Touré ma ne Samba jëf ndax may sa soxna mu noyyi ba tal yenn yi góor ñëpp defuñu ko mënuñu ko may sa soxna mu noyyi ba tal yenn yi waaye astu it jëf ndax lan nga ko woon ba mu noyyi loola it jigéen ñu bari mënuñu ko hmm? jàppalente rek la waaw seen Cheikh Tidiane nag nee na mool birig boo gis mu jub moolukaay ga moo norul birig boo gis mu jub moolukaay ga moo norul te jigéen mën naa ni góorey dinaa ko leeral nag bala may joxe assurance nga baal ma mën naa ni góorey muulukaay Alaaji Usmaan Géey dafa wax ni jigéen bu juddoo juróom-benn béjjén lay judduwaale lu ndeyam ak baayam sonn sonn ci yar ko ñaar yi dong la ñuy mën a dam mu des ñeent ñeent yooyu lu jëkkëram jàmbaare jàmbaare ñaar yi rek lay mën a dam mu des ñaar nee na ñaar yooyu ci des nag ab taawam bu góor a koy damm mbaa jabar ju mu indi ci kër gi mu génne ko nday jeeg baay bi lu ñu jàmbaare jàmbaare ñaar la ñuy mën a dem jëkkër ji lu ñu jàmbaare jàmbaare ñaar lañ mën a dem mu des ñaar ni feew ak moom bu ko taawam damul du indi jabar ci kër gi mu toog du fi ñëw mu jële ko waaye jóge ci sa yaay ñëw ci sa jëkkër mu redressé la formé la téye la dolli la defar la loolu la yàlla dogal diggante ak ci Touré ak Samba Ba ci école yi lañ ne di jàng loolu mënaguñ ko sunu soxna it ñu nga ci école yi di jàng mënaguñ ko kon yal na yàlla dolli tawfeex maa ngi jéggalu ci kàddu yi e, yéen ñi yore caméra yi nag du lépp lañuy ñuy yóbbu ca télé waaw lépp la ñuy yóbbu ca waaw di leen segg ak di seggaat waaw di leen segg di seggaat waaw laajaha di sëriñ Adi Touré gàmmam gi muy def ci ci Fass am benn année ñu ni dafa feebar du ñëw ci tànt bi ndeke dafa ñëw toog ca gannaaw waa ji doon bi ñu ko déyee ni ko suñu aadi déyee nga daa kii di daan parce que bu xamoon ne mi ngi fi du wax waaw fal mufti yi nag bi ñu ne sëñ aadi du ñëw def ni nañ ma jox ponki julli moom la war a waxtaane su mu commencé bañ di ko jox micro bi ñu ne jóg leen taxaw sëriñ aadee ngi dugg si ci tànt bi bi ñu taxawee ba toogaat sées bi faal toogoon kenn gisu fa kenn ñu di ko laaj te kenn gisu ko kenn xamul fu mu aw loolu nag la mag ñi lépp ci wax ki lay déglu moo lay gën a jekku li ngay wax moo tax yépp bu ngeen demee ni ngeen ko segg seggaat ko taaraar ko seet ya ca gën a jekk rek man bu ñu mënee yaa ngi génn télé damay tiit bi dañ ma woon ni ma yaa nga yaa nga télé bële bu Touba may lox ku ne ma woone ne xoolal ma de pour nu ma toogee ak nu ma waxee ndax wax yi tamit ah yenn saa yi nga dugg dugg dugg nag te doog te jamono biir ci raw nag ndax loo wax ñu commenté wax yombatul nit ñi nopp càmmoñ lañ lay dégloo da ngay wax jublu ci lu baax ñu firee ko lu bon wax jublu ci njekk réseaux sociaux yi dootoo ñimee téléphoné doo ñimee yónnee audio doo ñimee yónnee dara surtout nag coupé collé yow lii nga wax ñu jëli waxi keneen sof ko ca sosal la woo xam ne nii doo xam foo koy lijjante ji moo tax kenn ñi maytu la wax kon ne qaalu sakatta wa qad xuusinta qultu lahum inna al kalaama li baabi sharri miftaahu nee na ñu ma noppi nga te ñu ngi lay xas rek nee na ma ni maa yey ndax wax mooy caabi ay jaxaltu sukuuti matjaran fa lazimtuhu fa in lam ajid ribhan falastu bi xaasiri jël naa noppi def ko boutique toog ca su ma amul bénéfice du ma Hmm? jël naa noppi def ko boutique toog ca su ma amul bénéfice du ma perte Chérif looloo tax ma xaw a ragal wax bi may voyagé sa sa papa Serigne Adib bu Serigne Cheikh dama dem seeti ko di ko tàggu daaw may dem États-Unis mun ma oustaz su ngeen demee na ngeen wàññi wax parce que wax su baree rek di nga tudd loo bëggul woon tudd dama dem Chine ci seen tableau art yooyu ma gis ñu dessiné ñetti golo benn golo gi jël ñaari baaraam yi taf noppi beneen golo bi jël ñaari loxo yi taf bëti beneen golo bi jël loxo bi taf gémmiñ bi ñu bind ci suuf le trois secrets du bonheur bul ko wax ba mu jeex bul ko déglu ba mu jeex bul ko xool ba mu jeex hmm? ah ma yóbbaloo ko waaw yenn saa yi nga xam ni rek doon la kon yal yàlla jàppale ñu lu ci dëng rek ñu tamatul badu maa ngi lay jéggul ndax dañu laa jox heure waaw te man moom xam nga bu ma toogee shérif ah waaw kon na shérif maa ngi jéggul bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alqaili fi muhkami kitabihi واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الخلق أجمعين الذي من وجوده وجدنا ولولاه ما وجدنا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا مولانا أبي العباس أحمد التجاني يشرفني جدا أن أحضر هنا اليوم تلبية لدعوتي الكريمة يكون يسنتي الذي يجلجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلن دلن زيارة li daloon antara ibnu shadat moo ñu dal ci jotaay bi antara ibnu shadat dañ ko joxoon ci jotaay bi nu mel ay kilifa ku ci mel ni umar ibnu aysh ibnu hajar al kindi ku ne xam ku ci xam-xamam ci am fasaxam ci doon shaacir bu mag bi mu noppee Labid jël ibnu Rabia mi imam Shafii ne woon budul woon way dañu ko ŋàññi ndax bari na kuy way ngir wax li neex nit ki li ci jublu waaye la muy way amul danaa way comme ni Labid ibnu Rabia waye woon Oustaz Masilla damay àbb kàddu antaran wax ko laaj ndax desal nga ñu dara ci wax هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم معنا bi xëy هل ترك الشعراء قبلي شيئا kon oustaz Massile la li ñu waroon wax yëpp wax nga ko ñu ngi jiital ci nuyoo bi Cherif Ibrahim Haydara di ko wàcce wàccu waayam ndax maamam rasulillahi moo ne jiital leen sama waa kër ci bu leen leen jiitu oustaz Massile la sunu wëllëre sunu mag sunu xarit ñu yàgg lool doon borom xam-xam ku yàlla baaxal di nuyu kilifa yu tedd yi fi teew yëpp ñu fi jot ku lim juum waaye di waxee ci kàddu sama soxna soxna aasi bu sëñ maama aas moom sama soxna la soxna umul xayri moom sama sœur la du sama soxna sama sœur la noonu la ko papam waxee sëñ Moustapha ni ma soxna ummu du sa du sa soxna sa sœur la man duma sa goro sa frère la kon maa ngi jotale kàddu yi ànd délégation bu am solo sunu yaay jiite ko soxna ndaxte Sarr soxna maam xaar buub soxna Bousso Diagne soxna Astu Diouf ndax délégation bi benn la di am mbégte kontante di jaajëfal soxna su tedd si nga xamante ne nii moo taxawal bis bi di ko xamal ne bég nañ lool ci cër bi mu ñu cërale waaye dafa fekk ne bu ndigal ñëwee yar ñëw jëfe ndigal moo gën topp yar ndax dama ne woon duma wax Chérif Ibrahim ne ma dama la ñaan jëlal kàddu ba tax na dañu naan rek yàlla moo di aji wax dëgg allahu yaqulu lxaq allahu yahdi lil la yàlla mooy defar nit ki jëm ci dëgg afa man yahdi ila lxaq yàlla moo nga di defar nit ki jëm ci dëgg nag xaqu an yuttabi wala nga ne ay yuttaba moo gën a yeeyoo ñu jaamu ko man nasara alxaq fa laysa yuqhar ku dimbali dëgg kooku du ko xañaan ku ko tuutali du doon ku dimbali ki xam yàlla moo di borom xam-xam waaye la ñuy yeggee ci yàlla moo di yàlla بعدم فصل من قد وصل بترك فصل من قد فصل di nuyu waa kër maam borom Touba yi di leen wàccee seen wàccuwaay euh, Oustaz Massylla da nga dugg ci yu bare bari yoo xamante ne ni actualité la nga waxtaan loo xamante ne ni dañ ñu yokk ci sunu àlluwa lu bare bari waaye laa marwa ku la xam xam ne wax dëgg yàlla borom xam-xam nga waaye yeetekat nga dafa benn góoru yàlla bu ñuy wax bishrul xaafi dafa wax lu am solo mu ne ashaddu amali ila allahi salaasa ne na ñetti jëf ñoo gën a jafe jëfali ne ñetti jëf ñoo gën a jafe jëfali yàlla ñu ne ko ban ak ban mu ne ba ca njëkk mooy aljuudu fil xillati néewle ba nopp te tane aljuudu fil xillati néewule ba noppi tabe yor loo xamante ne ni yittewoo nga ko te boo ci boo ko jëfandikoo woon mu doy la nga gis sa mbokk jullit mu soxla nga yëkkati jox ko toog moom la yàlla di wax ci alquran wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa waxaat ne wa ma anfaqtum min cheyin fa huwa yuxlifu mu ne bay ñaareel bi mooy alwarau fi lxalwati alwara u fil xalwati li nga mel comportement bi ngay wan nit mi yiw baax na fekk ne boo wëlbati ko wala boo wéetee na fekk ne comportement boobu nga yor te tey loolu jafe la ci société bi kolaat daa namoon naa la nangam ak nangam yaay sunu ndam sunu titre bu génnee yàq la mu nekk lu doy waar mu nekk loo xamante ne nii sénégalais dafa ko muy dara nga gis ko xamante ne ni bu ñëwee ci tànt jàmm lay woote waaye ay boo dégg mu takk rekk xamal ne moom la mu nekk loo xamante ne ni phénomène bu doy waar la ci société bi ñu war cee bàyyi xel te tey loolu dafa yàq lu bare bari defatuñu ŋàññ gor muy dara defatuñu sosal gor muy dara defatuñu yàqante ci suñu biir muy dara te loolu danger la ci société mu ne bañ ñetteel bi mooy wa kalimatul xaq indama yaxaafu wa yartaji wax dëgg ci koo ragal wala nga yaakaar ko loolu problème boobu kilifa yi sëriñ si dañoo am problème boobu Chérif Ibrahim nga baal ma tey da ngay gis kilifa gu wax nga ne kii ani ay conseillers fekk dañ koo yaakaar moo tax waxuñu ko dëgg te sa maam rasulillahi sallallahu alayhi wa da daan diisoo ak ay njabootam ñu wax ku dëgg daan na wax Seydina Omar posé ko question ne ko sa wax la wala waxu borom bi tabaraka wa taala la mu ne sama wax la mu ne ko loolu foog ñu waxtaan ci léeg mu wax sax moom yonent bi Seydina Omar opposé wu bu alquran ñëwee ànd ak Seydina Omar kilifa noonu la yàlla ci boppam moo sàkk ñépp waaye dafa diisoo wa id qaala rabbuka lil malaika inni jaailun fi l xalifa noon na def waaye dafa woo malaaka yi diisoo ak ñoom ne leen dama bëgg a def sama représentant ci kaw suuf sama kuutaay ci kaw suuf waaye mu may leen ñoom it ñu développé seen seen gis-gis atajaalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima da nga nar a def ci kaw suuf ñu yàq suuf si di tuur deret mu dellu tontu leen moom yàlla may leen temps tontu leen inni alamu ma la taalamoon loolu it borom alal yi dañoo am problème boobu ndax nit ñi ñameetuñ leen wax dëgg ba tax lu leen neex ñu def te loolu yi danger la ndax amul fu nit di toll ci martaba ak ci maqaama ba weesu nit nit rek nga mën a doon sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sunu référence waaye jàngal nañu da doon diisoo ak ay saxaabaam di bàyyi xel ci yiñ koy wax mu koy jëfee moom Seydina Muhammad doon afdalu xalqillah kon oustaz Massylla dama lay rejoindre ci côté boobu tey dafa am feebar bu ñuy wax gis sa bopp yaakaar ne yaa gën ñépp te loolu feebar bu dangereux la yonent yàlla Yuusuf ku ne xam na ne moo gënoon a taaru ci lu yàlla bindi gannaaw rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dama yër téere bu ñuy wax ba badaa'ihu zuhur ma gis borom téere bi di nettali histoire yoon ci yàlla yusuf mu ne nazartu yowman ila almiraati fa ajaba xasunuhu wa jamaaluhu bis dafa jàkkaarloog seetu moom yoon ci yàlla yusuf mu yéemu taaram ku taaru woon la macha allah jàng na ci histoire ba mu tëllee ci invitation bi jigéen ñi dañoo gis taar bi daf leen yéem ba dañoo mujj dagg seen loxo te yëguñu metti bi kon kooku taaru na waaye ba mu xoolee seetu gis boppam yéemu ci xolam la wax ne wallahi walaw kunta mamlukan maa qadara ahadun bu doon sax jaam la ñu teg ma ci marché bi di ma jaay duma gaaw a jar ndax lu cher lay jar du ma kenn du am sama njëg ci xolam la ko wax yàlla ne ko ah bon kon sa taar gi gisoo ma ci sa bopp nga ci gis baax na yàlla nattu ko mu doon jaam ko ci marché bi moo gën a néew njëkk luñ ko jaay ñaar fukk ak dërëm lañ ko jaay ñi ne ñaar fukk ak ñaar lañ ko jaay kon gis sa bopp ci lu dul yàlla yàlla nañ ci yàlla musal Chérif Ibrahima ñu ngi am mbégte kontante di la feddali kóllëre ndax keroog ci sa gàmm la ñu tukkee ci guddi gi ba nii ñu ñibbisee alhamdulilahi rabbil alamin di am mbégte ak kontante jot mbokk yi mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp nuyoo bu ànd ak ziyaara leen nuyoo bu ànd tamit ak di feddliwaat suñu kóllëre ak yéen jaare ko ci soxna astu Touré ak borom këram bu baax bi di xaaji Sàmba ñu may ma balaa may wax ak sama mbokk mi di Cheikh Al Xaaji Omar Al Fuuti yu kan ñu may ñu tuuti rek ñu xerewlu ci minute yu gàtt xëy na ñaar wala ñetti minute moo tax ma ne say sax na ma may ñun ñëpp ñu xeraw lu tuuti rek kàttanu yàlla du yàgg benn minute wala ñaari minute yu may ñu ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa yàlla dafa yéeme bi ñu fi tàqalikoo daaw dafa am fu ñuy yemoon ci yonant bi sallallahu alayhi wa ñu ne bu déwénee ñu yeggali bunt bi ñu war a dugg muy fi yonant bi jaaroon ba dem isra wal indaale sëri caam bu rëy le daanaka lañ ca waroon a wax rek moom la Cheikh Alxaaji Omar wax ndax comportement moo koy joxe te muy la joxe ci jamono bii nag ñu nekk moo tax jërëjëf Cheikh Alxaaji Omar ñu ngi lay sant bu baax di la ndokkeel di tàmbali nuyoo bi ci yow ndax ñaar bés bi kenn ëppalewu ci beneen bi muy Cheikh Al fuuti ngay sëtam te lu baax ci réew mi rekk yàlla dogal na loxol Cheikh Al fuuti yu mu ngi ci biir ci wax walla ci orientation walla ci jëf loolu moom ñépp nangu nañ ko ñépp nangu nañu loolu loolu yàlla may na ko ko moom Cheikh Oumar ndax dafa di mag mu fi yàgg waaye yàggee fi nag ak mbaax yéene ñépp yiw ni ko ni nga ko waxee léegi yëgit ne yiw wi ko yàlla fàggul terewul yàlla fàggul na keneen yiw mu nangul ko ko wax naa ko fi ba muy fekk maam jaar yetu laahi buso ca dëkk ba la ñuy wax taba euh, kaba fa la fekkoon maam jaara buso muy root booba dënk ko maam Mor Anta Sali ku dem ba ca dëkk ba lii may wax dinga ko nga laajte ku ñuy wax ma du Diouf moo doon directeur école ba daanaka histoire dëkk ba yépp moom moo ko yore foofu fa lañ ko affecté woon fa la nekk ba retraité fa ba fa la am kër ba fa la faf toog man mii mayoon naa ko sama caatu yaay mu ko doon denc ndax xam-xam moo taxoon ma may ko ko boo demee ci dëkk ba dañ lay wax ne bi Cheikh Al Hadj Omar jógee Makkatal foofu la njëkk a jaar muy Kabakoto fa la ko Maba Jaxu fekkoon nit nag comme loolu taxuñu jóg waaye dafa am lu may wax rekk jëme ko ci moom foofa la fekk maam jaara buso muy root teen ba ba ba ma fay mujj mu nga fa woon teen bi ñu ngi ko tuddee duy daagu ndax saalum bariwuloon ndox ci jamono boobu waaye teen ba yàlla daf ko barkeeloon bi fa Cheikh Omar Fuuti yu jaaree ba ñaan fa tufli ci rek yàlla dafa def teen ba bari ndox ñu tuddee ko nag duy daagu dangay duy rek daagu dugg sa biir kër bi ma fay mujj man teen baa nga fa woon boo demee fi Cheikh Al Hadj toogoon di jàpp fi mu tegoon tànkam dafa marke doj bi mu tegoon tànkam dafa marke man bi ma fay dem boobu fekk na ñu commencé di ko toj xam nga wolof dafa ëppal di ko toj di ko yóbbu ñu faf collecté ko boo ñëwee da ngay toog rek dugal sa tànk jàpp barkeelu bi ma laajtee lu tax ñu collecté ko ñu ne ko ñu ne ma nit ñee koy toj di ko yóbbu te bëgguñ mu mu mu raaf boo demee néeg bi Cheikh Al Hadj daloon ak néeg bi maam jaaro bu sa dëkkoon ñoo ñoo dendee dañ la naan fii la maam jaaro ne woon fii la Cheikh Al Hadj Omar wàccoon la doon sabab bi it jinne jum loon ca màkkatal mukarram bi muy ñibbisi jinne ji jox ko ay orientation ci jihad bu mu war a def bi mu ko nee foo dëkk mu ne ko man gunjuur laa dëkk waaye dama am soxna kaba koto jinne wax Cheikh Alxaaj Omar mu ne ko waaye dama am soxna kaba kon nañ fa daje Cheikh Omar ne ko kañ mu ne ko tey te boobu tàkkusaan jot na ndax lay sabab bi lay sabab bi Cheikh Al dafa tàggal ko tàggatoo ak Cheikh Mohamed Al Ghali waxtu tàkkusaan Cheikh Mohamed Al Ghali yeewi ko pour mu war a ñibbi si Sénégal gannaaw bu mu fa defee ñeenti at di tarbiyu ci Cheikh Al Hadj ci Cheikh Mohamed Al te bi mu fay tarbiyu boobu fekk na lu ne jàng na ko Cheikh Omar mooy li wax léegi rek nit ñi nangootuñu am kilifa bëgg nañu daraja iñaan nañ Sénégal nag moo ci ëpple li Serigne Cheikh Tidiane si daan wax ne Sénégal rek laa gis kuy soxore nit di ko iñaane jonkonu ko mu pour mu torox ba faf toroxee fa moom yaakaar naa bi mu ko daan wax ñëpp dégg nañ ko mu ne Sénégal rek laa gis kuy jonkonu nit pour mu torox ba moom mu faf toroxee fa ci la waxe woon it ne Sénégal mooy dëkk bu naqaree dundee te neex a dee mu ne sooy dund wëyu nga rek waaye boo dee dinañ la takkal garaat yoo xam ne dangay jaaxle sax fu mu ko liggéeyee waaw Serigne a ko waxoon mu ne dëkk bu naqaree dundee te neex a dee mooy Sénégal mu ne booy dund woyu nga rek ak noo mën a mel mu ne waaye kër boo dee loo bon bon dinañ la takkal maratib yoo xam ne ak daraja yoo xam ne day ngay jaaxle sax fu mu ko jëlee Cheikh El Hadj bi muy dajeeg Cheikh Mohamed Al Ghali boo fekk na moo waxal boppam ne téere yi àddina bi yépp buñ lakkoon dana ko bindaat ak seeni commentaire te du ko gis waaye bi mu dajeeg Cheikh moom Al Ghali daf ko delloowaat awwalu awwalu maa bu alal mukallafi tasxiixu yi fa la ko delloo mu nangu mu def ak moom ñeenti at makkatal mukarram mu yeewi ko keroog bi mu koy yeewi nag Cheikh Alhaaj Omar ci maqaamu Ibrahim la toog biñ sëlmalee tàkkusaan Cheikh Mohammadul Ghali jox ko yi mu koy jox aleykum salaam wa jox ko yi mu koy jox yeewi ko tafaddal bi mu koy yeewi nag Cheikh Alhaaj Omar fi mu toog am ku koy gee kobos mu xool ko mu ne ko yaa Omar al Fuuti mu ne ko yow kan la mu ne ko man duma nit jinne la yeewi nañ la yaa ngi ñibbi waaye sa xol bi yépp taal jihaat moo ci nekk ne boo demee taal jihaat te demoo dëkk bu ñuy wax gunjuur koo xeexal dina la gañe ndax juróom-ñaari iqlim yépp ñu ngi tasee gunjuur malaaka bi yàlla dënk àdduna foofa lay sëpp di jox joxe ay directive na nga dem foofa waxtaan ak moom wa illaa jihaat boo taal danañ la gañe boobu fekk na Cheikh Al Hadj Omar yàlla may na ko tayul ardi ba muy dem màkka amu ko waaye bi muy wëññeeku nag la ko am muy tayul ardi ni tayul tilawati amee noonu la tayul ardi amee moo tax mujj na Cheikh Al Hadj diggante màkka ak Sénégal quinze minutes la koy def ci gàttal fekk ñuy root ca teen ba mu hëyu leen mooy eh yëkkati loxoom jigéen ñi ku yëkkati mu ne déedéet ku yëkkati mu ne déedéet ba maam jaara bu yëkkati loxoom mu ne ko ah, yow moomu laa wax xanaa gisoo leer gi lay wër mu ne ko déedéet mu ne ko yàlla def na ci yow koo xam ne àddina wërngal këpp dañ ko xam kon kooku soxorut ca la ko Maba Jaxu fekkee foofa ca Kabakoto nag gannaaw ba mu yónnee maamu ndëri ba rumeur yi amee mu ne maamu yi demal nga seetal ma ki ñuy wax ne Cheikh Oumar la ndax moom la su fekkee moom la joxal ma ko juróom yépp muy am te maa ngi ñëw ziyaare si ko su dul moom nag joxal ma ko ñaar dërëm yi te indil ma sama ñetti dërëm ndax ormal ko bi mu yegsee ba wàcce fas wi nuyoo Cheikh Al Hadj nekk nikk ci loxoom ne ko demal ne ma ba bu mu sikk ndax man la jox ma sama juróom kon kan ñu ngi lay ziyaare bu baax di feddali kóllëre suñu yow jaar ci yow waaye jaare ko ci soxna umm waaye ñu ngi lay yëgal ne la Sëriñ Mansour waxoon moo ma dal sama diggante ak yow boroom daara ji moo daan wax ne kusatuñu satuñu kow dagg dootoo mën a wax ëpp law ëlaw law rek ngay wax waaye man samatuñu tuñu ko dagg na te moom miyee ko dagg ndax dama ko dama jékki-jékki rek seen ko ci gàmm gi teel mu yegg si suñu gàmm ga la ca géejawaay tabaarakallaahu te fekk boobu bagage yaa ngi ca otoom mu war a tukki te loolu yëpp yëg rek waral ko bam mu tukkee ba tey mu ngi nii di door a ñëwaat yàlla dajalewaat ñu fii encore kon hasard amul Serigne Cheikh Tidiane moo daan wax ni bu dee hasard am na nañ ko boole ci turu yàlla yi mu ne nit lu mu xamul rek ne hasard mu ne waaye hasard amul kon kan ñu ngi lay ziyaara bu baax sa barke maam waaye di ziyaare soxna ummu donte suñu doom la waaye suñu sëriñ la la ma waxoon papaam ca journée culturelle balaaji ahmad dem ca grand théâtre bi ma jëlee parole biñ ma joxee kàddu ma ne ko sëriñ Moustapha mu ne démb ci xadara bi rek maa ngi koy ñaanal yàlla sëriñ Moustapha xaaj Malick Cissé ji ngeen nga fa woon ma ne ñun ñëpp war a dajee ñaanal sëriñ Moustapha démb ci xadara jumaa bi te yàlla dafa def démb xadara bi dafa fees bi ca mbedd ma ma ne leen sëriñ Moustapha ne ñëpp takku ñaanal ko yàlla ndax sagu diine ji la sagu tarixa bi la sagu kër Seydul xaaj Malick la nit ñi dañu bon rek dañ bon man jël leen lépp ngeen yóbbu teg kenn mën a lu ma dara ko dut yàlla lépp teg leen ko bu leen ci dindi tus te bu ngeen ko dindee maa ngi yéen la heureusement sama télévision la sax tegal leen ma lépp bu leen ci dagg dara réew mi bu fekkee ku wax dëgg ñu dagg sa tuñ samay tuñ ak samay nopp yëpp dañ ko dagg ndax yàlla dinaa ko waxal lim moom kenn mënul ma ne kenn mënta tëj sama gémmi ku dul jalla jalaaluhu wa adda kamaaluhu al al al al xaqu laa yuqarribu la ajala wala yaqta u rizq dëgg du tax nga deete sa dee jotut du la xañ wërsëg yaa ayyuha alladina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada lillah walaw ala anfusikum aw alwalidayn wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awli bihima yal na yàlla dolli sutura démb ci xadara bi rek tabaarakallah Hadj Malick Cissé wax na fa wax yu am solo Cissé jinge ma ne kii senegal buñ ko xamoon dañuy raam di ko seeti waaye Sénégal ñu bon rek lañ bëgg ma ne leen Hadj Malick Cissé bii buñ ko xamoon dañuy raam di ko seeti ndax mag ñëpp ormal nañ leen ba ormal na leen bañ dem rawatina ak Serigne Cheikh si al ma ne ko dama lay bañ a gémmiñ ñu sax siise parce que dëgg-dëgg jaraw lakk ma leen Serigne Cheikh ñépp xam nañ ne woykat la taalif kat la boroom xam-xam la waaye ma ne leen boroom xam-xam yi ñaare en général seen mbind du rafet duñ doon calligraphe Serigne Cheikh nag lu mos a taalif siise jinge la koy jox ne ko demal nga bind ko moo dàq bind ci kow suuf ñaar laa gis ne seen mbind rafet na yu ma xam man Cissé Jinge ak sàmba Njaañ ay calligraphe pire lañ tabaarakallaahu kon ñun dañu lay ziyaare kii nag yaayam moom itam lebal ma bor bu ma ko mënta fay moom soxna umm ya jóob bii la yebal mu ñëw kër ga mu ne ko demal nga ne Chérif Ibrahima faawaat wele bi moom laa bëgg mu waxtaanal ma ci sama maam Sëriñ baaba kër Si wallahi wa sharafil Qur'an ah ya ñëw wax ma ko ma ne ko ah yaxya loolu diis na bésam boobu sëñ Abdoul Amin day ñëw ñëpp dañuy ñëw yax yaxya ne ma sama yoon newu ci de bàyyil ma woo la jox ma woo ko jox la ko booba it confirmation laa bëggoon rek xam nga Sénégal dem lante gi daa bari léeg diw ñëw ne la diwa ma yónni fekk day kàcc ba tëdd ca naaj wa kenn yónniwu ko dee leen def fata bay yenu dee leen ko def de ku nekk war na koy def wa in jaakum fasiqun bi na naba in yenu jamono moo moo lëj Serigne Cheikh Tidiane si ci entre parenthèse ngeen baal ñu xaq comme tey samedi la garaawul ku bëgg a ñibbi rek yeewi nañ la buñ fi desee ñu ni nee ñu waxtaanal yàlla li mu bëgg rek sëriñ Cheikh Tidiane si nee na ci ci ci nit koo xam ne du wax lu ko wóor nee dañ toog bés mu ne am ku ñëw rek nuyoo ñu fay ko mu ne ñu commencé waxtaan tuuti rek mu ne Mor Xulle day yàlla dogal na jóge na fi moo tax am na kuñ ma wax léegi na jógee na fi man sama fit wi rëcc na sax ndax bi ma ko gëjee gis ak léegi yàggut waaye mu ñemewu tudd turam foog ma leerlu ko nga xam na am na wala amul waaw da dal na ma maag imam Moussa géej ñu toog rek am ku ko woo téléphone te wallaay xam naa ko mu ngi fii ci géejawaay dal di ne ko sëñ Abdou Khadir Mbacke moo fi jógee te boobu sëñ Abdou Xaadir a ngi dund matul cinq minutes waa ji woote waat ne ko alaaji Moussa mbaa xibaar bi ma la wax léegi siiwoogut mu ne ko maak Chérif Ibrahima déye fi toog ak Kumba Caam mu ne ko ne leen bu mu siiw de amut <laughs> kooku sax baax na dabaatal na waaye bu doon keneen dafa naan pat mën a gis nga imam Moussa information yëpp nii lay tasee sëriñ Cheikh ne waa ji jékki-jékki rek ne mool xulle dee na démb mais ah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne wallahi maa jàpp ci jaat ji biñ koy suuli xam nga mënoon na ne dee na rek muy muy écho xëy na muy écho waaye maa jàpp ci jaat ji preuve la kooku moo dugal boppam ndeysaan yàlla dogal gis nga pour wax la li mu wax léegi réew mi entre parenthèse yàlla dogal sëriñ Cheikh nee na ñu toog matul 15 minutes Mor Xulle nuyu Medoune Xulle bal leen maq Medoune Xulle nuyu mu ne ñëpp xoolante mu ne waa ji jékki-jékki rek binni binni bu rëy ne maa ba àddina sëriñ Cheikh ne ko ba woo àddina àddinaa la ba ndax mënoon nga ne dégg naa ne dee na rek waaye maa jàpp ci jaat ji preuve la da nga mën a fen sëriñ Mansour mooy magu sëriñ Moustapha bàyyi soxna umm mi toog xamuñ ne sama gàmmo gi sëriñ Mansour moo ko daan waxtaan bi muy dem tukki la ma ne jëral sama papa sëriñ Bay abdu mu ñëw di ko waxtaan mais moo ko daan présider moo ko daan waxtaan ba 99 moo ko waxtaan bi mu fa mujjee 99 Abdou Aziz Fall moo doon filmer boobu muy waxtaan ci fen comme li nga wax rek léegi rek Sénégal niñ mën a fenee rek muy waxtaan ci fen moom Serigne Mansour mooy magu Serigne Moustapha mu ne mu ne xamoo ne kenn ku nekk ci ñun dafa am fen dafa am kota ci fen mu ne mag ñi nag yàlla baaxe na leen dund nañ ba dem seen quota laaluñu ko mu ne waaye ker boo reppee ba fen sa quota ba mu jeex dootoo bàyyi fen ndax quota jàmbur yi lañ lay jox nga di ko fen rek te bu jeex ñu jox la beneen quota bu jeex ñu jox la beneen dooto bàyyi fen ba ba ngay dee waaw nañ ko ko wattandiku baaxul gis nga aaye jii ma teg sànq ay ju daw yaram la la ma ci gën it ittir rek alladina yaxmiluuna al xawla yaxmiluuna al arsha wa man xawlaha yusabbixuuna bi xamdi rabbihim wa yastaxfiruuna lilladina ñun la te ñooñu xamuñ ñu xëyuñu gontuñu fenn lu dul sàbbal yàlla waaye bu waxtu wuñ sàbbaale yàlla ba jant bi so ñu jublu ci ñun jullit ñi yàlla faghfir lilladina taabu jéggalal yàlla ñii tuub ña tuubul sax mu ne yàlla boole leen ci te ñooñu yàlla delloo seen ñaan kii keroog yaayam yàlla dogal bi yi ñëwee wax ma ko bi may dem Grand Théâtre maa ngi ko fekk rahmatullah alayha soxna asiyatu mu ngi toog ci cour bi kuur bi sax a ngi fees dal ndax boobu kuur bi sax dañ ko baas nijaayu Abdou Aziz mbay moo toog ci wetam ak euh, Jaal Mbaye ma ñëw rek mu jóg ni Chérif ñëw nga euh, Mansour demal nga wax xale yi way ñu ñu arrêté ndax Chérif ñëw na dal di jóg ànd ak man ci salle bi dem toog ca chaise ya ca fauteuil ya jàkkaarloo ak man ne ma waxtaanal ci sama maam Serigne Babacar ma waxtaan ci Serigne Babacar be daaneel jox imam Moussa mu waxtaan ci Serigne Babacar ca fan yooyu ñu jël kaset bi yóbbul ko Serigne Mansour borom daara ji mu seetaan ko ba noppi ne Chérif Ibrahima day lii mu wax ci sama maam dinaa ko décorer dinaa ko may xaalis ak mbubb Serigne Habib doomam mu ngi toog Serigne Habib ne ma mu geesu ne ma Habib nag yow lu ma wax nga def ko waaye maa ngi gën ci yàlla ne bii bu ko def maa koy def waaye gis nga ci Habib la ko yàlla mottalee Serigne Habib la ko yàlla mottalee ndax teguñ ci 3 mois xaw ma 4 mois Serigne Mansour wuy ji borom sëñ Habib moo indi mbub mi ak xaalis jox ma kon kii bi ci des yaayam def fi loo xam ne ci senegal kenn du ko fàtte waxuma sax faawaat wele bi waaye moo ci mujj man bi mu tawatee ma seeti ko Tiwaawan maa ngi ko fekk ca këram ba ca Tiwaawan ci biir li muy tawat tawat keroog dafa génn ñëw toog te mu ngi doon séddale añ mu ñëw teg dënd ak man ma ne ko soxna si yow yaa ngi feebar ba pare di togg wala di di sonn ni ma ne ko lii mu ne ma déedéet shérif xataa yaatiyakal yaqin la yàlla wax ndeysaan ma seet ko ci feebar bi keroog laa ko mujj gis keroog la may wax ba wax ne ma ah yaakaaruma ma wér de ndax sama papa moo ma wax ne juróom benn weer la may rawee te loola am kon kii bu ma amee ngor man Chérif Ibrahim foo nekk soxna wu mu war naa lijjanti foo nekk donte nag alhamdulilahi rabbil alamin yàlla teg na la ci suñu soppe suñu xarit suñu sang suñu sëriñ gis naa nag feem bu ma neex sànq boobu moom yàlla na jëm kanam bi xaaj ma si di wax bay bay wax kan kan kun ma gis mu ne nii sama doom nee na nii haji <laughs> si la fi nga laal a baax waaw ma dolli ci man nag beneen yoo xa yow laa koy dimbale mii kaa nag sotu ma dégg waaw sotu ma nag dégg waaye sama sanga fi nekk rek moo tax gisoo sama mbokk yu baax yi sax te dugguma leen yàlla moo dogal eh, waaye la la pël ba waxoon nag dalu la yow pël ba dafa toog ñépp di tagg seen bopp ak seen sant kii naan si kii naan mbàkke kii naan ay dara kii naan ku ne di tagg bopp pël bi jékki-jékki ne kam yéen amul leen sant seen sant yi baakut ñu ko ah si mbàkke aydara nga ne sant yi baakut mu ne man dong la sama sant baak ñu ne ko noo sant mu ne ka ñu ne ko ah nu sa sant baake mu ne ku dee nga sant ka góor mu sant ka jigéen mu sant ka te dee rek moo am solo gaa yi wax mu ne acca jullee leen néew ma gis yëf ya di dëgg allahuma innahu abduka mu ne jeex na man la <laughs> waaw waaw nu amatika nga xam nga damir yëpp kala lañ koy delloo maanaam yàlla lañ ci jublu waaye kala rek ka kala rek mu ne mu ne sama yoon newu ci ka kala rek waaw <laughs> kon wax na dëgg fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin moo tax nag eh, lay lii boo gisee lii yàlla teglante ci alquran maa kaana lillahi an yattaxida min waladin subhanahu ida qada amran fa innama yaqulu lahu kun fa yakun qaalat rabbi anni yakunu li waladun walam yamsasni bashar qaala kadalika illahu yaxluqu ma yasha ida qada amran fa innama yaqulu lahu kun fa yakun badiu samawati wal ard ida qada amran fa innama yaqulu lahu kun fa yakun huwa alladi xalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wa yowma yaqulu lahu kun fa yakun huwa alladi yuxyi wa yumiitu fa ida qada amran fa innama yaqulu lahu kun fa yakun innama qawluna li cheyin ida aradnahu an naqula lahu kun fa yakun yaa jaa ila alxaali bayna alkaafi wa nuun innama amruhu ida arada cheyan an yaqula lahu kun fa yakun tabaarakallah kon kan am na solo yal na yàlla def sutura ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar di nuyu soxna asiyatu suñu sëriñ suñu doom waaye nii rek la nag ndax seen maam yi nii lañu àndee woon ak jaami yàlla yi kon jërë ngeen jëf yal na yàlla niñ daan def rek xitaamuhu misk fa bi wa fi dalika fal yatanafasil mutanafisuuna yéenay mujjee kàddu gi incha allahu taala di nuyu ñëpp di ziar ñëpp xaaj ma si la jëf démb liñ ko tudd ci xadara ba maag siise ji ngi kenn xamut ñaata yoon la man dafa mel ni sama làmmiñ bi mënumaa wax ba jeexal te tudd mu ko ndax xam-xam yi muy génnee te mu am solo lool lool lool mën a defar lu bari nag kon kan nit ku baax la nit ku am solo la nit ku am njëriñ la ku yàlla dimbale la it nag fa tabarakallahu di ziare taggkati yonent bi cheikh ñu ngi lay nuyu yàgg équipe bi nga àndal yépp damay bañ ca topp leen rek bu ma limee ñit ñëpp rek bu may tuur ca topp leen waaye bu ma nee cheikh rek mu yóbbaale ñu ci des ñépp fa tabarakallahu waaye xalifa comme ñëw na te mooy seen magum daara ah ñu boole ko ci tabarakallahu ak eh, suñu doom jooju tabarakallahu di suñu wëllëre di sëñ Ibrahim Fall baayam magu baayam tuddee na ma doom nee na ki ma tuddee sax mokkal na alxuraan ba gàmmoom ngi moo doon tari fa la tare tabaarakallaahu ki ma tuddee war na ma am léegi 15 ans fa tabaarakallaahu kon ñu ngi lay jéggulu sa gàmmu gi am nañ ci yéene moo gàmmu cheikh waaye daf ma fekk may taxawaalu rek waaw góor ñi ñu ngi leen di nuyu jigéen ñi ñu ngi leen di nuyu soxna astu jërëjëf xaaji sàmba jërëjëf di wax ne lii ngeen taxawal fii taxawalal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo am seen pay ak yonent bi waaye kenn amul seen pay yal yàlla wutul nag fayal ñu leen gën caa rafeti pay ngeen yàgg ko di taxawal ba seen njaboot wuutu leen ci di ko taxawal di sant ñi yore caméra bi ak technique équipe technique bi soxna astu daaw bi ma fiy ñëw ak daaw jeeg yépp LCS ñoo daan ñëw yàlla dogal LCS nag dañu am beneen partenariat amatul léegi LCS ne ne existe pas amatul léegi tabaarakallahu dafa dañu am partenariat boo xam ne man ñoom laa bëggoon sax ñu nekk sama partenariat waaye fekk am na keneen ku dugg ci diggante bi muy soxna may mën a tey laa koy mujj tudd nag LCS ndax fii daf fi daan ñëw moo tax soxna may mën a nduur fay moo jël partenariat bi tabarakallahu ahsanul xaaliqin tuddee ko 7TV euh, du noonu waaw 7TV la ko tuddee léegi waaye nax saayul parce que télévision kenn mënu ko jaay ci taxi yi am da koy loué wala nga yaa xam noo koy tuddee rek waaye kenn mënu ko jaay boo ko xesee moom ba pare mënatoo ko jaay mën nga ko nag loué yaa xam 10 ans 15 ans 20 ans 2 mois trois mois 2 ans waaye ngeen xam ne looloo tax bu ngeen gisatul LCS rek loolu la waaye kame eh, ki ko daan jël si Amadou Kebe mu ngi nii toog maa moom ñooy liggéey tabaarakallaahu ah ñu yàlla dënk ñu as télévision muy Chérif Dabakh TV ah, ñu ngi ciy liggéey ndànk-ndànk incha allahu taala eh, xëy na buñ paree ci loko yeeg yooyu ak yenn matériel yi nga xam ne yi yegsi na yi yegseegul ah ñuy ndànk ndank rek kott kott yoll yoll ba taxawal ko bi mu mu taxaw rek incha allah waaye matériel bi yëpp am na tous les matériels am naa ko catawuma it sama bopp matériel yi ma am sax ñii amuñu ko yàlla seede na ko te ki ko financé mosuma gis xamuma ci aadama xamuma ci awa ci youtube bi rek la may seetaan ba dagg bi yem ñëw def yépp delluwaat ne boo gisoon terrain buy jar cent million sax ma jënd ko loo bëgg ma def ko te xaw ma ko ci aadama xaw ma ko ci awa depuis trois mois nag mu ngi mu ngi dox yàgg na ci sax benn ma fii ak trois mois bu fekkee ne amoo signal parce que signal yi xam leen nag ne fii ba deux mille vingt six benn signal du am état bi moo ko bloqué signal du am fii ba deux mille vingt six maanaam signal buy jaar ci TNT bi du am fii ba deux mille vingt six waaye satellite bi kenn moomu ko nee na bu soobee yàlla boo bëggee ma jaarale ci satellite bi. ma ne ko booboo dàq nag ndax doo ci fayantey sa bay dee la waaye état tamit lu mu def rek xam na li tax mu def ko parce que tamit télévision yi dañuy bëgg a bari ni jaaykatu bong bong te xëy na la ñuy wax arrangé wul sax diine ji waxuma la ak àddina kon ñu xamal leen ne Cherif Dabakh TV moo fi nekk di ko couvrir te incha allah dinañ ko teg intégralement dara duñ ko ci wàññi lu dul la xaaj ma si la bëgg ñu wàññi ko rek daañu ko wàññi. waaw euh, teleb gan nag bi daan ñëw moom ñëwut euh, ndax booba partenaire yaa am aw ñoom convention boobu moo tax kon su ko defee waxtaan bi du gudd dañuy yeggali li woon daaw li woon daaw mooy ñu ngi yemoon fi sallallahu alayhi wa sallama reerandooree ak sëram mën nañ ni ndax ndax ummu haani mook Seydina Ali ñoo bokk benn bàyyi